asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ñu topp ci biir réew mi ak ci bitim réew eh, noo ngi leen bu baax a baax ah, te di leen ziar eh, di jiital ci nuyoo ak ziar yëpp Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan sunu borom mu dool ko fa yàggal bu baax a baax eh, te dolli ko wér waaye di ñaan sunu borom mu lépp lu mu naal ngir liggéeyal ko Serigne Touba Cheikhul Khadim yàlla na ko yeggale waaye di ñaanal bu baax ak ziar Serigne Cheikh Jëmm di suñu buntu ci maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan yàlla suñu borom doolu ko fa yàggal bu baax a baax mbokk yi xam ngeen ne eh, niñ ko baaxoo defee at mu jot ci weeru koor eh, muy liggéey bu tedd bi nga xamante ne bi ku tedd ki di Serigne Touba Cheikhul Khadim moo ko santoon maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina eh, te mooy togg ay ndogu di ko yóbbul ki nga xamante ne bi di ko yóbbul ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim eh, taarix bi duñ denc di ko nettali eh, ku baax kee ko woonu woon fa njëriñ na ko Ibra Fall damay séntu gan damay am gan te bëggoon nga séntul ma ko te teral te gungeel ma ko te teralal ma ko Cheikh Ibra Fall mi dégg Serigne bi laaj sëñ yaaram mbay na ko fu weer wi toll sëñ yaaram leeral ko ko mu ne ko kon de weeru mooy ganam sëñ Bamba ay ndogu la may toggaloo daal di wax ne nañ ca jëm lu waaye am def ca Cheikh Ibra Fall wax ne ndogu yi ma sëñ Bamba doom ku ma jox la toll lépp tànk ma faggul la ci loo xam dootu yàq te ba fatoo ma dugal laaj rek xam ngeen loolu maam Cheikh Ibrahima Fall tàmbale woon ko ca njëriñ xam ngeen nag ci atum 1915 wala loolu itam maam Cheikh wéyal ndigal loolu ba jógee fii ko ñaar fukki at moom itam wéyal ndigal loolu ba mu fi jógee Serigne Mor Talla Fall wuutu ko lu toll ak ñetti topp maam Cheikh Ibrahima Fall jotee nam ko daan liggéeyee noonu la njaboot gi tey di liggéey ndax foo mbooleem fukki buntu kër ak lu topp foo ci dem tey ñu ngi jëfandikoo ndigal lu topp loolu te mooy togg ay ndogu yóbbul ki fi nekk Serigne Touba Cheikhul Khadim Serigne Cheikh jëmm di maam Cheikh Ibrahima Fall tey yàlla teg ko fi mu jiite njaboot gi fii ci Mbàkke ci këram la koy toggee xam ngeen ne bu ko toggee ba noppi ànd ak mboolem njaboot gi yóbbul ko Cheikh Mouhamadou Mountakha résidence Cheikhul Khadim bii ci jumaa ji foofa lañ koy jébbale Cheikh Mouhamadou Mountakha waaye ànd ko mboolem njaboot gi nag ñi nga xam ne dañoo bokk ak moom wayjur ndax seeni wayjur njabootu Cheikh Ibra Fall lañ waaye ñu jokku ci Serigne Cheikh jëmb jël seen lépp jox ko waaye ñi nga xamante ne bi itam ay Cheikh lañ yu toppoon maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina xam ngeen ne itam ñoom ñëpp itam ñi ngi ànd ak Serigne Cheikh jëmb ci liggéey bu tedd boobu mboolem njaboot gi yëpp itam kenn ku ci nekk tey ndax fii may waxee yéen rek jàmbaar yi eh, maam Cheikh Ibrahima Fall eh, Cheikh Moudou Falilou Fall Serigne Moudou Aminta eh, xam ngeen ne njabootam ñi ngi nii di tàbbi si ki nga xamante ne bii mooy Serigne Moussa Fall Mbar ak ki nga xam ne mooy Serigne Falilou Fall magam ju baax ja ñu wéyal liggéey boobu moom itam di ay jàmbaar jàmbaar loo xam ne mosuñoo deñ bés bu yàlla sàkk ngir ndigal li nga xamante ne bi ku tedd ki maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyi woon na fi ñu di ko wéyal xam ngeen fukki ndab ak ñaar yawoon ca njaarim ca cosaan moo indi tey junniy ndab ak ay junni junniy ndab yu du jeex fenn fu ci nekk ci buntu kër yi boo dee fekk ko fa eh, boo xoolee tey li fi teew ci mbooloo fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh Jëmm li fi teew ci seex yi li fi teew ci àdduna ñëpp a ñëw daanaka kenn desul ndax xam ngeen ne kumte bu njëkk moom seen i yéene ak seen pas-pas mooy rek fekke si ko waaye jël lépp loo xam ne Cheikh Rafal woote na danga ca def sa dara waaye tamit euh, du ñu fàtte mbokk yi xam ngeen ne mbaar mu mbaar mu sell mi mbaar mu rëy mi nga xam ne alali maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ko doon taxawu ci ndigal la Serigne Cheikh Jëmb di ñu songu liggéey bi mu doonoon nag liggéey boo xamante ne bii ci ay xat-xat ba ma ay xat-xat mooy booba ndogu yaa ngi jub si te bëgg nañ liggéey bu noppi bu ko defee bañ a am benn jafe-jafe ñu wëlbatiku waat nag fexe rek ba jaayante la ne la sëñ bi bëggoon la sëñ bi ñu defal ko ko fii ci mbaar mi gis ngeen ni mbaar mi mel eh, ba jébbal ko bi ngir bu ñu yeggee ci nopp ci yi nag ñu daal di li nga xamante ne bi mooy finition bi waaye ku gis tey mbaar mi ñu togg ndog yi gi nga xam sëriñ Falilou Fall suñu mbirum tàkku liggéey waaye nga gis mbooloo mi fi teew kenn ku ne am pas-pasu rek jël sa ñàq tabb ci am pas-pasu yanu ci ndab yi mbaa nga yanu ci kees yi nga xam ne ñoo def mboolem luy jël xeeteeg bernde yi jëm ci ku tedd ki Cheikh Mouhamadou Mountakha loolu rek lañ ñëwoon tey faaw nu won leen ko won leen ndaw yu njëkk daal ni ko tàmbalee fii ci kër sëñ Cheikh jëmm jàpp leen ni nag fii ba weeru koor wi jeex bés bu yàlla sàkk nii lay demee ndax Cheikh Ibra moom la mu waxoon ku tedd ki rek féetale yàlla yow mi xam yàlla ma féete yow ma mi la xam te maam Cheikh Ibrahima waxoon na ne ndog yi ma sëñ Bambay toggaloo kat doom ku ma jox lu toll nip tànk ma fàggu la ci loo xam dootu yàq te bu fatu mu dugal àjjana loolu mooy cosaanul ndog yi ku ne xam na ne boo ñëwee fii ci kër gi gis mbooloo mi gis ndab yi da ngeen ko gis ci image yi waaye ku ko gis xam ne ñoom dencatuñ jox nañ ko kon nag joxe ba pare ndax képp ku di Baay Fall Ah, bu kumte jotee moom mënatoo denc ndax la nga am Cheikh Ibra ko moom te danga ko koy jox te mag ñi ne nañ ci njaareem buñ ma santi togg ndog yi Cheikh Ibra ndog yi da koo ñoroon ba da daan ñëw fi saxaar na ko saxaar si Cheikh Fall ne ko xanaa xamoon ne saxaarus ndog day dindi ak rag saxaarus ndog yi sëñ Bamba yi day dindi ak gis naa fi kenn ci magi taalibe yi Baye Cheikh Ndiaye dër gi doomu sëñ Ahmadou Ndiaye ñaaya dañ koy tuuti rek xam naa mu leeralal ñu lenn ci cosaanul ndog yi parce moom démb fi la ko fekk Baye Cheikh Euh, euh, waa kay mbokk yi jëmm ji ngeen di jàkkaar lool mooy Baye Cheikh Ndiaye doomu sëñ Talla Ndiaye war keera moom sëñ Ahmadou Ndiaye Ndiaye moom nii xam nga ne eh, moom di ko jox addiye junni. tey daal loo sant suñu maam yow teel a mu ba gën ci jaam yi mu ngir mu jëm ci seen xaw Seexul Xadiim Mustafa sallallahu alayhi wa li nga xam ne nee na ku ca suudu soo xarangoo dem soo raa soo defoo dem soo darngoo dem soo raanoo dem soo doyoo dem soo borom mi nga xam ne nee na la dimbalee mu doon ne dimbale saa yoo baatu noonu ba ndigal ci sëñ bi yàgg yoo war mu yàgg man nag li may wax rek toujours dañoo wax ne bu may waxee dama ne man amu amaguma jëmm amaguma wax rek addu addu laa koy defal mooy Cheikh Makhtar Ndiaye Cheikh Mamadou Fallu Njaay Cheikh Makhtar Njaay moo fi jënd Cheikh Ta Cheikh Makhtar Njaay Cheikh Mamadou Fallu Njaay waaye ñu xam ne daal moom mi kenn la ci njaboot gi nga xam ne ay jiwriñ lañ ci biir kër sëñ Ahmadou Ndiaye Ndiaye lépp lu ñuy liggéey ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall wax na ci ñu ci biir liggéey bi jërëjëf Ndiaye sant nañ baax ñu dina jottalim siyaar sëñ Modou Fallou Ndiaye ak mboolem njabootu sëñ Ahmadou Ndiaye Ndiaye gi yëpp jërë ngeen jëf kon mbokk yi ñu ànd ak rek ah, ndog yi su ko defee eh, xool li ci biir liy dox ci biir su ko defee fasaaleel ci nag mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp liggéey bi eh, ci biiram ah, ci bitim réew fii ci waañ wi nga xam ne mooy waañu Serigne Cheikh Jëmm Fall euh, di xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall tey jii ci bis bu njëkk bi nga xam ne mooy euh, kumte bu njëkk bi mboolem njaboot gi yëpp itam ñu ngi fi waaye njabootu Serigne Bassirou Fall Xuraan lañ toogal nii euh, xam ngeen sunu jëwriñ ju baax ñuy wax soxna Soda Jaxate moom saa su nekk bu ñëwee fii lañ koy fekk tey nag xam naa ne dafa am ngànt jëwrinam yu baax yi teewal ko fi ànd feeg moom soxna Xadi Bey moom lañ ak soxna Daba Ndiaye ñoom lañ fas yéenee jox Euh, ñu ñu ñu ñu leeral rek liggéey bu tedd bi nga xam ne euh, sunu jàmbaar ja sëriñ Bassirou Fall Alxuraan nga xam ne ndamam lu rëy li àdduna bépp séddal nañ ko ndax moom la ma waxoon rek moo ma ne woon damaa dégg saam Cheikh Fall mag ñi nee nañ Cheikh Ibra nee na sama yoonu parcours bu jiitu moroom ja topp ta moom ko fi mas a nekkal Cheikh Ibra Fall rek ku ne xam na ne làq na sa njërëm ba tey ji yàlla dogal mu ànd sëñ Cheikh Jëmb liggéey bu rafet lool tey bàyyi ko njabootam gi tàmbale ko sëñ Bada mu sëñ Mbàkke Fall waaye mboolem njaboot gi yëpp tam ak taawam bu baax bu di sëñ Gunda Bas ak mboolem njaboot gi yëpp ñu ànd liggéey bi ndax tey boo ñëwee fii mboolem njaboot sëñ Mbàkke Xari Jóob yëpp ñoo fi daje ñu fas yéene rek euh, ñu leeralal ñu waañ wi naka la doxee ren. sëñ Maamun. ñoo ngi sant yàlla bu baax. di sant sëñ Bassirou Fall alxuraan jàmbaar ja di sant sunu taalibe yii àndam na di sant soxna Ndiaye Guèye. di ñaan la yan bi yal na woyof tooy yal nañ ko bokk ak bépp jullit. waa kay mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci waañu Serigne Cheikh Jëmm Euh, fii nga xamante ni mooy mbaar mu mag ñi nga xam ne mooy waañu mag wi fekk fi nag ni ma ko waxee woon léegi rek xam ngeen ne njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gi yëpp ak ñi nga xam ne ñoo sëriñ bee bokk wenn wéyjur bokk Cheikh Modou Moustapha Fall dañoo ñëw nag kenn ku ne sot la sëriñ bi fii ma toog mooy cinu sëriñ Cheikh Assou moom sëriñ Modou Moustapha nga xam ne sëriñ Modou Moustapha Fall la ko dipp sëriñ Cheikh Mbacke Gaye defaat moom muy góor yàlla di jàmbaar lool xam ngeen ne magam yi fi mas a jaar ñëpp la ko tàmbali Cheikh Modou Fallu ba ci sëriñ Cheikh jëm kenn ku ci nekk tey kenn teg sa Euh, di ko liggéeyloo di ko yónni di ko dox doxloo lépp loo xamante ne bii day jëm ci liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall bi Serigne Cheikh su Ndiaye di jàmbaar lool ñu fekk nag ci waañ wi kenn ci jëwriñam yi tur wi naka la soxna si. Fatma Gueye. soxna Fatma Gueye. Euh, euh, da ngeen a togg ba noppi. waaw ba ba jébbale nañ ba pare. ba jébbale ngeen ba noppi. waaw wan waxtu ngeen di xëy si waañ wi. fii tey moom 6 heures matin lañ ñëw. 6 ah. heures. ba léegi yéen a ngi fi. ba léegi ñu ngi fi di kenn delluwaatu. ban jébbale ni ma pare wante nag biñ santee yàlla jublu ci yonent bi sant Serigne Touba ak maam Seera Fall mi waral Mbabooru di sant Serigne Cheikh Assou Ndiaye mi xam ne mooy sunu bunt ci Seera Fall te rëccuwul lu mu doon suñu bunt ndax Fall bëgg nañu yiir nañu tenir nañu taaliba yaa ngi toog si seeti matin lañ ñëw ba nege ni te yàlla mu teggeeku ba bisu Korite ga te nu mu nu ak nu mu yiwee ak nu mu baaxee rek. ni ko sëñ bi bëggee rek loolu lañ ko fa séenee def muy sëriñ bu baax sëriñ bu yiw sëriñ bu bëgg taalibeem bëggu njabootam fonk ñu lool ñun taalibeem yi ñoo gënal njaboot gi ci biir kër gi mu jàppalañ ci saayir ak baatin nag bu nekkee ci saayir buñ soo gis ko mu gën ci ñun te buñ baatin beer nag bu buñ jaaxlee buñ soo gis ko am xéewal ak li gën kon yàlla nañ dund yàlla guddal fanam wéral ay cëram ku fi ma sa toogal maan seer nag liggéeyal na kon sëñ Modou Fallou Fall yi la doon def topp ci magam nangu ndigal mooy seex nangu ndigal kër sëñ seex jëmb gi mu toog léegi nag tubaarkàlla macha allah ba mu desee ñetti fan la Samba Saye ñëw muy nagu yi laltaaye bisu kumte gi ah, ma barke maam Seera Fall nagu 800000 lañ indi laltaaye ko teg ca amuloo ba loolu moom dañ ko jox sëñ seex jëmb laltaay ji la soo ko togg nag ca kër ga ñaari cin togg fii cin muy ñett ñu jël nag la xéewal yëpp boole ci jébbal ko sëñ Seex jëm ak ak ak li ñuy wax toftal yi toftal yi tubaarikàlla dara manqué lépp lu murid war a xewloo rek jënd nañ ko tay te luñ jënd nag sëñ bi da koo xeeb di ñaan yàlla maam Seera Fall kumta ngi ñëw mu raw gii kon Seex Mbàkke fi yàgg te wér waaye Eh, jërë ngeen jëf mbokk yi xam ngeen ne eh, ànd nañoo ndog yi nga xamante ne bii eh, léegi lañ leen doon leeral rek taarixu bi nga xamante ne bii ndog yi am na ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina ñu xëyoon nag tey jii ci première kumte bi kër Serigne Cheikh Jëmb Fall mi fi maam Cheikh Ibrahima Fall waaye bi nga xamante ne bii nag liggéeyu ndog yi noppi na ba nga xamante ni bi mboolem ñi nga xam ne ñoo koy togg di njaboot gi jébbal nañ ko Serigne Cheikh Jëmb ni ñu koy waxee saa su nekk rek mooy mboolem rakk yi mboolem seex yi mboolem taalibe yi ku nekk am nga fa mbana goo xamante ni bi nga noppee da nga da koo Eh, defar ba mu jekk nga ànd ak murit yi ñëw jébbal ko sëriñ bi bu noppee ne dañ ko yëpp nag xam nga ne ci camion yi indil ko Cheikh Mouhamadou Mountakha indi fii nga xamante mooy résidence eh, Serigne Touba Cheikhul Khadim fii nga xam ne xam ngeen ne eh, Cheikh Mouhamadou Mountakha diir mu doon Serigne Touba Cheikhul Khadim fii lay dundal la weeru mag wi di weeru koor ni mu ko waxee woon rek mooy waa Hizbut Tarqiyyah xam ngeen ne ak murid yi ñoo fiy daje ak mboolem sëti Serigne Touba yi njàngu mi nga xamante ne bii dañ ko fi jàngoon gu jot saa su nekk xam ngeen ne Cheikh Mouhamadou Mountakha moo koy teewee waaye ci tàkkusaan gi itam nag jàpp waxtu wi njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom itam daal di yanu ndog yu tedd yi nga xamante ne bii euh, taarix la ci yoonu murit euh, ndax euh, ci yàgg na wax naa ko léegi ñu daal di koy jébbal si ki nga xamante ne bii mooy Cheikh Mamadou Mountakha waaye ki nga xam ne moom la Serigne Cheikh jëmm ñi teg ndog yi ci loxoom muy Serigne Moustapha Cheikh ñu gën ko xam ci Serigne Moustapha bu tedd boobu ànd koog nag njabootu yëpp nag xam ngeen ne mboolem cheikh yi nga xam dañoo aju ci maam Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem rakki cheikh maam cheikh rakki xam rakki Serigne Cheikh Jëmb euh, ki nga xamante ni mooy Serigne Moustapha Cheikh mooy Serigne Moussa Takk Der ñëw jébbal si liggéey bi Cheikh yi moom tam di jëwriñ ni sëñ Modou Ablaye Fall Ndar tey mu ànd ak Serigne solo boobu waaye tamit mboolem nag ñi nga xamante ni bi daal du jar sax di lim kon kenn ku ci nekk rek da nga gunge Serigne Cheikh jëmm liggéey bu tedd bi nga xam ne dénk na ko ak njabootam ngir ñu indi ko euh, euh, fii ñu taxaw nii tey fi la Baye Fall yëpp di daje Eh, ci kanam tuuti dañ daal di wàcce ndog yi gis ngeen camion yëpp ndog yi la sëf yii ay mburu la sëf yii ay keesi pom ak mboolem xeeti bernde yëpp eh, sëf nañ ko indil ko Cheikh mu Mountakha kon dañuy daal di rek ànd ak eh, kii daal di jébbal jébbale liggéey bi liggéey bi nga xamante ne bii moom la ñuy liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall ci weeru koor te mu amoon ci ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim waaye tamit mbooleem Baye Fall yëpp daje nañ naa fi sax nag benn murit boo xam ne maam Cheikh Fall moom maam Cheikh Moudou Fatma mooy mooy buntam mooy Mbaye Diaw Baye Fall gis nga moom itam daa takke laxasaayam ci Ndakaaru ñëw sot ci rek xam nga Cheikh Modou Fall ak Cheikh Ibra yàgg nañ lool waaye loolu rek gën a firnde na mboolem buntu kër Cheikh yëpp nag Cheikh yëpp ay àndandoo Mbaye Diaw Baye Fall ngi ni moom xam ngeen ko bu baax moom moomaa euh, ngi ni taxaw moom itam xam ngeen ci liggéey bi la sëñ Modou Gissé kaay gars yi ràññee nañ leen baax a xam ngeen ne booba mi ngi coordonné liggéey bi rek moom itam xam nga jàmbaar ci sëñ Ngunda moom góor yàlla la léegi la ñëw indi si af kor feeñ la dóor moom jaajëf kon eh, camion bi ngeen di seen moom mooy yeb ndog yi eh, murit yaa ngi ci kaw xoola Assane Mboup Baye Fall xoolal Matar Ndiaye xoolal Malick Fall xoolal daam Baye Eh, muri xam na leen ñoo ay jàmbaar lañ ñu ngi nii ci kaw camion bi foo leen fekk xam nga ne ay ay ay saadix lañ ñii ay ñeeyu xare lañ sëñ Modou Aminta rek xam ñii sëñ Modou Aminta rek leen xam ndax nii nii mu mel moom moo leen ni def loolu day wane ne kon maam Cheikh Ibrahima Fall Baye am na ndam loolu moom loolu leen doon taataanal ci euh, bis bu njëkk bii ci yi euh, fii ci kër Serigne Cheikh jëmb lañ déparé ñëw ci kër Cheikh Mamadou Mountakha kon daal la ma fi waxoon ne sëñ Moussa Ñankolu nee na day day bés maam Cheikh Ibrahima guddi Cheikh Ibrahima Fall da ko woon na ko Moussa bi damaa dem fa sans borom gestu gis ngeen ngeen xew xewaare li ma xool ma laaj sama borom ne ko ñi liñ fi def mu ne da ngaa xeeb yónni ma ne déedéet xeeb ma ko waaye dama leen war naka pa yam ak ñoom ngi leen di yónni sëñ Bamba di ñëw mooy yano yi ñi yanu ndab yi ñi di bàyyi ko ke sëñ Cheikh jëmm ñii di bàyyi koo kër sëñ Ablaye Fall Ndar ñii di bàyyi koo kër sëñ Amadou Ablaye Fall ca Ndar Fall ñii di bàyyi koo kër sëñ Modou Fall Mbend ñii di bàyyi koo Paaleen kër sëñ Cheikh Fall Mbor ñii di bàyyi koo kër sëñ Abdou ñii sëñ Taala sëñ Taala euh, euh, sëñ Mortala Fall sëñ Cheikh Ibra Fall mooy sëñ Abdou Roqeya mboolem buntu kër yi ba daaru xafoor kër maam Saliou Fall ndax xam ngeen ne jàmbaar ja euh, sëñ sëñ Assane mu sëñ Modou Maam Fall tey moo fi sëñ Saliou Fall ànd ak nag sëriñ Falilou Fall moom sëñ Dame Saliou munu maa lim daal daa mel ne ndax ñi teew ci sama kanam bari nañ te bu ma limee mën na maa mën na maa juum waaye daal wone na daal ni ñu ko defee fii noonu lañ ko defee ci mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp kon mbokk yi nga xam ne topp euh, seen télévision Lamp di topp seen site internet yi nga xam ne euh, saa su ne ñi ngi liggéey bi jàpp leen ne daal diiru incha allah waa jës bu mur ni ko fas yéene ànd ak yéen won Cheikh Ibrahima Fall Babu Mouridina wan leen ndamul maam Cheikh Ibrahima Fall Babu Mouridina wan leen jëf ji nga xam ne Cheikh Ibrahima Fall yàgg na ko jëfal ku tedd ki te bokk na ci la ma waxoon dabe ndab ku bëgg a góor ñi jullit ñi jox leen ñu rek bu suur buntu boobu rek fi des Cheikh Ibrahima Fall dafa xam xam li xew xam li xew a tax tey lii am kon noo ñaan yàlla yàlla na yàgg sax ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall Babu Mouridina jaa ngeen